الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي نيجي دلوات سانت سني بروم سبحانه وتعالى ci lim ñu wërsëgal ñu dajewaat fii ci ab néegam di fas yéene jàng la nga xam ni muy ab téeréem tey nag suñu borom yàlla mi ngi mi ngi dogal suñu tafsiru tey bi luyu ci samedi bi passé am na koo xam ni mag la ci ñun at yu yàgg mi ngi ànd ak ñun tafsir bi ñi ngi koy tuddee Babacar Diak doonte ne Mbay Diak lañ ko doon wax yàlla dogal na lu jege deux semaines lañ mujj wax téléphone bokk na lam moo doon wax àllarba bu nekk xelam yépp ci jàkk ji rek lay nekk keneen ki mooy ki nga xamee ni nii dañ koy tuddee Omar Dieng moom it yàlla dogaloon na muy ñëw fii ci tafsir bi mi ngi noonu suñ mbokk bi jililoo moo may wax ne moom it dafa gaañu ah non non jililoo moo may wax ne Omar Omar Dieng dafa gaañu Omar Dieng moo gaañu daan nekk fii toujours ci tafsir bi mbokk ki ci mujj it mooy suñu mbokk sow sow boobu daan jógee Cambérène ñu bëri ci yéen yaakaar naa xam ngeen ko muy ku njool nii ci ñuul moom it lu jóge fanweeri at ñoo nekk fii ci jàkka ji moom léegi lañ yëg xabaaram ne dafa faatu ñi ngi doon jokkoo ba bi ñuy ñëw ci jàkka ji ak waa këram xamaguñu ci lu leer waaye dafa faatu mi ngi nekk hôpital Fann jàpp nañ ne dañ ko denc suba waaye xamaguñ ci daal lu leer mbokk ñooñu ak ñoo xam ne xamuñu leen ñoo daan ànd ak ñun fii ci jataay bi suñu borom yàlla yóbbu leen yàlla mi mi nga xam ni mooy dogal lu ko neex yàlla na leen yàlla teeroo njéggal ak yërmande yàlla na yàlla defal leen àjjana muy seen wàccuwaay bés bu ñu yàlla di jëlit yàlla na ñu jël ci ngërëmam te wërsëgal ñu njéggal ak yërmande ak firdawsil aala kon incha allah tey mooy le douze ci weeru rajab di tombeeg le vingt quatre ci weeru février ci deux mille vingt et un ñu bàyyi Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind. waaw ba tey it ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci suratul ahzab aaya fanweer ak juróom suratul ahzab innal muslimina wal muslimat mi ngi noonu ci page quatre cent vingt deux bi. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرم مني إن المسلمين إن المسلمين والمسلمات ña nga xam ne day dañoo jébbalul yàlla ca góor ña ak ca jigéen ña wal muminina wal muminat ak ña nga xam ne dañoo gëm ca góor ña ak jigéen ña wal qaanitina wal qaanitat ak ña nga xam ne dañoo wommatul yàlla sax ci jaamu ko góor ña ak jigéen ña wassaadiqina wassaadiqaat ak ña nga xam ne dañoo dëggu ca góor ña ak jigéen ña wassaabirina wassaabiraat ak ña nga xam ne ay muñkat lañu góor ña ak jigéen ñi walxaashiina walxaashiaat ña nga xam ne dañuy toroxlul seen boroom ca góor ña ak jigéen ña walmutasaddiqina walmutasaddiqaat ña nga xam ne dañuy sarxe ca góor ak jigéen ña wassaa'imiina wassaa'imaat ak ñi nga xam ne dañuy woor ca góor ak jigéen ña walxaafiziina furuujahum walxaafizaat ak ñi nga xam ne dañuy wattu la nga xam ne mooy seen awra ya ca góor ña ak jigéen ña wazakirina allaha kasiran wa zakiraat ak ñiy fàttaliku yàlla lu bari ca góor ña ak jigéen ña aadda allahu lahum magfiratan wa ajran azima yàlla ngi leen di waajal njéggal ak la nga xam ni pay la boo xam ne bu màgg la wokk julit suñu aaye bi daanaka mooy aaye bi gën a dajale melokaan yi yàlla gërëm ci téeréem bi suñu borom tudd ci fukki melokaan yoo xam ne moom kese doyoon na tafsir falilahi alhamd am na waxtaan buñ ci defoon ci gibraltar ci benn aaya bi kese la ndax daanaka lëmb na ëmb na lépp loo xam ne nii diine la suñu borom day wax ñi nga xam ne allaxira suñu ñëwee dana leen jéggal ca jagleel leen pay yu màgg ya ca pay gu màgg googee mbokk muy aljanna aljanna boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dana nekk téeméeri daraja daraja bi gën a suufee ña nga xam ne ñoom ñoo fay dëkke képp kenn ci ñoom nguur ga nga fay am dana ëpp nguurug àdduna gi fukki yoon ba baa muy yegg nag téeméeri daraja ca kaw kon bu yàlla ne màgg na màgg na loolu nag melokaan yi ci yàlla wax bu jëkk ba mu ni mooy ñi jébbalul seen boroom almuslimin mooy julit ñi islaam buñ ko boyelee day ëmb mboolem lu ñuy gëm ak mboolem lu ñuy jëf amma buñ ko booleeg iman comme fii muslimin wal muminin su boobaa lislaam day féetewoo jëf ya julli yaag koor yaag zakar yaag yu deme noonu amma iman day féetewoo la ñuy gëm ci biir xol ya gëm yàlla ak malaaka yaag yonent yaag téere yaag dogal yaag yu deme noonu kon ñi nga xam ne wom motul nañ seen boroom ci jëfee arkaanul islaam ak lépp lu lislaam woote ak ñi nga xam ne gëm nañ lépp lu yàlla santaane ñu gëm ko na doon ñooñu góor la ñuy wala jigéen ak ñi nga xam ne dañuy wom motul seen boroom jaamu ko jaamu goo xam ne dañ koo nangu ni ngi noonu aman huwa qaanitun ana al-layli saajidan wa qaa'ima nga xam ne dañuy yow sax xaaju guddi toroxlu seen boroom duñ discuter lenn lu yàlla santaane ca góor ña ak jigéen ña gannaaw ba borom bi wax ña nga xam ne dañoo dëggu dëggu ci seeni wax dëggu ci seeni jëf ni ngi noonu loolu nga xam ne mooy jukka bi lislaam gën a gërëm ci jukka yi mooy yóbbu ci mbaax ca mbaax googu mooy yóbbu aljanna na doon góor ña wala jigéen ña gannaaw ba it muñ ko diya nga xam ne ñuy muñ ba def dogali borom bi ba def santaane yi borom bi waaye muñ ba bàyyi tere yi borom bi waaye muñ la nga xam ne mooy dogal yi yàlla di teg seen kaw ci nattu yi àdduna yi ñett yooyu mooy ñetti pàcc mbur muñ yi gannaaw ba alxaashiin moo ñi nga xam ne dañuy toroxlul seen boroom duñu réy réylu duñu puukarewu ci kaw nit ñi bépp jaamu gu ñuy def dañ koy jaamoog ànd ak ragal yàlla mbaa yàlla nangu na jaamu gi am déet قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون toroxlul yàlla jàll wa ala gannaaw ba it borom bi wax ña nga xam ne dañuy saraxe te sarax bi gën ci sarax yi mooy zakat xamal ni yow doomu aadama jegewoo sa borom lu gën lam faratal ci yow la gën ci julli mooy julli juróom la gën ci sarax yi mooy zakat mi ngi noonu gannaaw ba nag yeneen sarax ya ak sarax ba lum mën a doon mi ngi noonu gannaaw ba borom bi mu ne wa saimin ña nga xam ne ay woorkat lañu ca góor ñi ak woorkat ca jigéen la gën ca koor ga mooy shahru ramadan bi ñuy séentu ci fan yu néew gannaaw ba nag loo mën ci kooru naafi la mbokk boobu ma leen doon wax di sow boobu mi ngi tudd cheikh sidiya sow yaakaar naa bilal ci am bokk na loo xam ne lu mu ràññee ko mooy bërigum bëri woon ak koor mi ngi noonu ko ñëpp xam ne bërigum bëri woon ak koor rahimahullah kon wasaimin ak ñi nga xam ne dañuy woor mi ngi noonu gannaaw ba ñi nga xam ne dañuy wattu seen pay mooy góor wala jigéen duñu njaaloo duñu góor jigéen duñu def lenn ci seen pay yooyee xatta li ñuy tuddee fexe ba génn sa mëni yu yéen ndaw ñi ñu koy tuddee la nga xam ne nii masturbation ak yu demee noonu yooyu yépp l'islam da ko xaramal wattu seen pay lu dul xanaa ci seeni soxna mi ngi noonu illa ala azwajihim mooy góor wala jigéen jigéen ca borom këram soxna góor ca soxnaam waaye bu dul looloo dañuy wattu seen pay wattu ko duñ ci def lu bon wattu ko di ko sàmm ba kenn du ko gis xamal ne yow xaram na ci yow sa pay bi keneen gis ko ku dul sa jëkkër wala sa jabar ñoom dong ñu am droit gis sa pay lu dul ci cas extrême lor su boobaa nag nga xam ne feebar a ko waral gannaaw ba it borom bi fukkeel ba mu ne ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla lu bari azakirin allah di tudd yàlla ci seen xol ya di xalaat ci mbindaafanu yàlla comme ni ñu ko doon jàng ci timis inna fi xalqi samawati wal ard julit lépp da ca war a fàttaliku yàlla di xalaat yàlla ci mbindaafanam gi waaye di xalaat yàlla ci ndigal yeeg tere yi loolu mooy zikir bi gën a màgg taxaw nga ci kanamu buntu riba sa xel ne yar ci naa yàlla daa aramal li bànneexu njaaloo ngi nii sa xel ne yar yàlla dafa aramal li ca mooy fàttaliku yàlla ca ndigal yi ak tere ya waaye nag fàttaliku yàlla yi ci lammiñ yi di tudd yàlla tudd gu bëree bëree bëri loolee mu séddale ko ñaar am na lu ñu tuddee zikrul mutlaq mooy foo toll rek ngay tudd yàlla foo toll ngay tudd yàlla ak noo ko mën a tuddee subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah allahumma salli ala muhammadin wa sallim ila akhiri moo am lu ñuy tudd nag zikrul muqayyad mooy yoo xam ne moom daa tënku ci ay place li ngay wax booy dugg douche booy dugg jàkka li nga xam ne nii da nga koy wax xataa booy ànd ak sa soxna boo jullee ba pare askar yi yonent bi jàngale 33 33 33 zikr yi yonent bi jàngale la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir 100 fois nga koy def lum néew néew par jour subhanallah wa bihamdihi 100 fois matin 100 fois soir loolee ay zikr la yoo xam ni moom dañ koy tudde yu ñu tënk place bu nekk nga def fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégle loolu moo gën nga def fa leneen lu dul loolu borom boobu nag ne ñooñu nga xam ne dañuy tudd yàlla lu bari ca góor ña di tudd yàlla lu bari ca jigéen ña borom bi nee na mi ngi leen di waajal njéggal ca it mbokk diine islam du diine puukarewu xoolal ki melokaanu melokaan yi ki kay xanaa dañ ne moom daa war a rek yëkkati mbaggam mooy dem àjjana di yóbbuwaale ku ko neex àjjana waaye xoolal yàlla jëkk wax maxfira te mooy diine ji mbokk loo gën a jaamu yàlla gën a yaakaar njéggalu yàlla ki xamul rek moom mooy dem ba jàpp ne texe ne waxuma naan day texal keneen mi nga noonu loolu mandargay texee di la waaye maxfira la leen yàlla jëkk a dig njëggal gannaaw ba nag doog leen dig pay yu màgg ya yàlla nañu yàlla dajaleel mboole mi jukka yi ca nangul ñu ko mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وقرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne wa ma kaana li mu'minin wala mu'mina yellul nag ñeel kenn koo xam ne da ngaa gëm ngay ko góor wala ko jigéen ida qada allahu wa rasuluhu amra su dee atte ne yàlla ak yonentam benn mbir an yakuna lahumul xiyaratu min amrihim mu leen di ñeel nag ak tànn ca la nga xam ne nii moom mooy la yàlla subhanahu wa taala dogal borom bi subhanahu wa taala mu ne wa man yasi llaha wa rasula koo xam ne nii nag daa mooy yàlla ak yonenti yàlla faqad dalla dalalan mubina ku mel noonu day réer na réer goo xam ne réer gu bir la gu leer wa is taqulu lillazi an'ama allahu alayhi fàttalikul ba ngay wax ñeel ka nga xam ne yàlla xéewal na ci moom wa anamta alayhi yow it nga xéewal ci moom ma zayd ibnu alxaarisa amsik alayka zawjaka wattaqillah téyel sa soxna si ca nga ragal yàlla wa tuxfi fi nafsika ma allahu mubdiihi ngay nëbb ci sa bakkan loo xame ne ni yàlla dana ko feeñal wa taxsha nnaasa ngay nekk di ragal nit ñi wallahu axaqu an taxshaahu ca day yàlla moo gënoon a yey ci nga koy ragal fa lamma qada zaydun minha watara ba nga xamee ne zayd jeexal na ci moom sawxa ba mu amoon ci moom ay xemmem ba mu amoon ca soxna sa zawajnaakaha noonu lañ la mayee soxna soosey mi ngi noonu li kay laa yakuna ala almuminina xaraj ngir mu bañ a nekk ci julit ñi benn xat-xat fi azwaaji adiyahi ad adiyaihim ca soxna yi ña nga xam ne dañ leen doon woote woo di leen doomoo ida qadaw minhunna watara su dee ñoom dem nañ ba jeexal ci ñoom seen sawxa bañ amoon ca ñoom wa kaana amrullahi maf'ula nekk ne mbiri yàlla nag loo xam ne moom luy lu ñuy def lay doon mi ngi noonu luy sotti lay doon mbokk kon borom bi tagg na ñi nga xam ne ñuy julit ñi gëm wax melokaan yi ñu war a melokaanoo gannaaw ba nag mu ni du dagan ci benn jullit góor nga wala jigéen suñu borom yàlla atte benn mbir ba pare ngay tànn ndax lii dinaa ko def wala duma ko def suñu borom yàlla waxul ngay moy yàlla directement rek waaye tànn nga sax yàlla dala koo tere même bu doon da ngaa dëppoog la neex yàlla waaye waaye da ngaa tànn rek kon léegi yow sa bànneexu bakkan nga ci boole te suñu borom dane woon fala wa rabbika la yuminuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim xaraja mimma qadayta wa yusallimu taslima julit ñi seen ngëm du mat mukk lu dul ne problème bu am dañuy xolloo ca atte gannaaw ba ñu nangu ko du ñu am seen benn bakkan ñu tudde arrière pensée wala xalaat lu dul nangu ni lii yàlla ak yonentam wax lii rek mooy dëgg te lii rek mooy war gannaaw ba ñu jébbalul yàlla ak jébbalu loolee mbokk am na xissa yuñ cay wax ci diggante Zeynab ibnu Jahsh ak frère am ba waaye li ñuy tudd rek al ibra bi umumi lafz laa bi xusuusi sabab ay yéen jullit ñi da ngeen war a xam ni ay jaami yàlla ngeen ñetti ñii ñu lim wallahi mën ngaa wax ne balaa cent ans Sénégal gépp fekke leen am déet jeex na kon ñu xam ne ay jaami yàlla lañu dañoo war a commencer palais de justice président de la république assemblée nationale ngalawaay lépp loo xam ne ay loi la yu ñuy tëral war nañoo xool lan la ci yàlla santaane ba safaanuwul ak la yàlla bëgg loolee tey jii bu ñuy xoolee ne intérêt doomu aadama yi tax nañu imposer ñu ay masque ak ay couvre-feu ak ay lépp ngir sauver suñu dund mais sauver àllaaxira moo gën a yey loolu it moo tax ba gàllawaay yi nañu bàyyi xel ci loolu bu baax yow jullit avant ngay nekk lu mu mën a doon xamal ni jullit nga avant tout jullit ngay mujjee ministre ak président bu dee li ñu xalaat jàkka ja armeel ya jeex na loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag nekkoon ko mooy yàlla ak yonentam réer na réer goo xam ni réer gu tar la yal na yàlla yërëm saha jigéeni sahaaba ya dañuy wax benn ci sahabatul kiram kuñ leen tudde juley bi juley bi dafa nekkoon nag koo xam ne nii li gaa yi wax daal moom daal ab yambar la rek kenn neex deret lu neex waaye daal wax ko bis yonent bi alayhi salatu wasalaam na ko juley bi doo denc soxna mu ne ko ah yow mu yàlla yónni man ma jëlee xam nga ne fu ma dem ñaan soxna kenn du ma may mu ne ko demal demal fële demal kër sëñ Caam ñu may la soxna ah bi mu ñëwee woo sëñ Caam ne ko ah yeneen ci bi alayhi salaam dama noonu ma ñëw nga may ma nga may ma soxna mu ne ko hee jule bi maag yow séq ñu ay soxna xale bu jigéen bi nga xam ne moom la yonent bi waxoon pour ñu may ko ko génn daal dina ko ah bàyyi xanaa déggoo la yàlla di wax wa ma kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuduluhum alxiyara yàlla ak yonentam bu ñu dogalee amul amul amul amul luñ ci tànn comme yonent bi moo ko yebal di may sëy may leen ma ma sëy ah ñu ne ko comme yaay sëy demal mu sëy mu dem sëy ak juley bi yonent bi alayhi salaam wax ko sahaaba yi ñaanal ko yàlla teguñu ci dara xare uhut ñëw gaa yi dem di xool ña nga ña nga xam ni ñoo faatu ñu naan diw day faatu na diw faatu na ba jeexal yonent bi na ah waaw ana jule bi ah ñu ne wax nga dëgg de gaa yi dem di wër di wër ba gis ko fu mu tëdd juróom ñaari nit la rey avant ñu koy rey gaa yi koy yaakaar naa kii du yambar de mi ngi noonu soxna soosey waa Madina di ko jox xaalis di ko jox xaalis ba mujj bokk ci jigéen ñi ëpp xaalis ci Madina loolee ngir nangu gam nangu leen borom bi subhanahu wa taala borom boobu kon loolu la wax léegi nag beneen kaa bi ñëw jàngoon nañ ca li passé suñu borom subhanahu wa taala mu ne daganul yow nit nga xool kenn rek na ko doomoo naa la yonent bi defoon na ko yàlla tere ko ko léegi nag ngir mu effacer ko complètement suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne ko gis nga sa kii nga doomo woon muy Zayd ibnul Haarisa soxnaam sii dana ko fase waaye bis bu ko fase takk ko yow nga jël ko njëree ni ñépp xam ni affaire ndoomoo amul benn jeexital ci dara mbokk loolu tiis yonent yàlla bi lool koo xam ne naafiq yépp ñi ngi koy rëbb di xool fan lañ koy jaar mi ngi doon comme ni politiciens Sénégal yi doon rëbbe Sonko mi ngi noonu ñépp ñépp koy rëbb di xool fañ koy jaar tey jii moom mu dem naan dafay ah def li nga xam ne li moom mu takk nag jabari doomam bismillah loolu nag metti yonent bi lool ah Zayd Zaynab bint Jahsh sëwoon nag Zayd ngiree yonent bi alayhi salaam moo ko labat waaye neexu ko woon ndax moom mi ngi bokk ci aristocrate yi Madina yi ki nga xam ne mooy Ummima bintu Abdul Muttalib moom moo jur moom moo jur ka nga xam ne nii moom mooy Zaynab boobu mu bokk ci famille yonent bi Haashimi ñi may ko koo xam ne barki démb jaam la fi nekkoon waaye nag mu nangu ko waaye nag mbokk wala fi dañ naan soxna lu mu la ëppale lu dul toogukaay bis la na la ko masa woon am déet mi ngi noonu ala kulli xaal sëy ba daal neexul nekk nañ ci un an Zeynab ki Zeyd heure bu ñëwee ci yonent yàlla bi ay yëmi yàlla yàlla yónni bàyyil ma fase Zeynab bi waaw xam naa ni suñu jukko daal àndul comme yonent bi xam ne bu ko fasee yàlla dana ko takk ko bu ñëwee bu la ko waaye téyel sox téyel su soxna si téye ko nga ragal yàlla dégg nga ba baa nag suñu borom yàlla di dogal nag zaydu fase ko ala kulli xaal bokk di luñ ciy dégg it loolu suñu borom wax amsik alayka zawjak ngalla waay yewit del gànnaayoo loolu yow kilifa bu benn waay jóge fële ak tàngooram sama soxna si nangam nangam nangam ha ak ki koy fasaka mu dem déedéet ku loolu la may mën a indil ci soxnaam ne ko téyel sa soxna masla ak ñoom ba moom muy jël décision boppam waaye daal bul fasaloo kenn soxnaam képp ku ñëw ne ko am sik alayka zawj téyel sa soxna mi ngi noonu su ko defee kon suñu borom mu ne ko yaa ngi nëbb loo xam ne yàlla dana ko feeñal nga ragal nit ñi su ne Aïcha dani képp ko jàpp ne yonent yàlla bi nëbb na dara ci alquran dooral na gën jaa màgg ci dooral ndax yonent yàlla bi bu doon nëbb aay bi lay nëbb yàlla nee na ko yaa ngi ragal nit ñi ci yàlla gën a yey nga ragal ko ko waaye gis nga yonent bi da koo wax ni ko ko yàlla subhanahu wa taala sante suñu borom ne ko demal takk ko may naa la ko bal sax borom bu ne zawwaj naa ko ha may naa la ko demal jël ko looloo tax Zaynab ci ay jigéen nu ñu mën a def ay fiiroo dugg seen diggante bu daan wax ak yaay Aïcha lu mu leen di wax waaw toog leen foofu rek yéen ñëpp seen bàyyi leen maye man nag yàllaa ma maye ca kaw arasham ba kon xam nga du ma seen borom yaa ngi dégg waaw loolee kon borom bi mën a zawwaj naa ko ha ngir nit ñi bañ a am xat-xat ci seen soxna yi dem buñ ko fasee. te it mbokk doomu aadama yi nañuy bàyyi xel ci ni li yàlla daganal kenn amul droit di ci critiquer kenn masalan tey benn soxnaa ngi nii jëkkëram day dee jëkkër ji dee na muuru na ba muuru bi jeex ah am ku ñëw takk ko mais da ngay gis nit ñi dañuy gàddu seen lammiñ waaw moom lu muy yàkkamti ah jëkkër ji matagul sax six mois mu dem takk lu ci seen yoon suñu borom yàlla moo moom ay jaamam nee na lii laa tëral ah lii la yàlla farataal lii sëy bi jeex na suñu borom mu ne wala juraha alayhinna fi ma faal na ñu ko waxe wala jana alay fi ma faal na fi anfusihinna min maaruf feneen fi bil maaruf suñu borom mu ne seen yoon nekkul ci li jigéen ñi di def waa ji takku ko wala nga bàyyi leen takku ko rek mu jeex yow soxna si yow néew ci kum mën a doon ala kulli xaal suñu borom mu ne ngiree jullit ñi bañ a am benn xaraj fi azwaaj adiyahinna ida qadaw minhu minhunna wa tara borom bi it jalla wa ala ne kon mi ngi noonu yàlla lépp lu mu dogal fokk day doon luy am moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam mujj naa takk Zaynab bintu Jaash mu ñëw bokk ci soxna ya nga xam ne sa ummahatul muminin muminin yi lañ bokk yonent bi alayhi salaam bi muy takk bi muy takk Zaynab Zayd ci boppam la yónni ne ko demal ne Zaynab yàlla day nee na ma jël ko comme soxna Zaydu nee na bi mu ñëwee ci ci ci kër gi mooy fii fi Zaynab bintu Jaashi dem nee na bi mu ñëwee ba jàkkaarloog moom dafa changé ci man complètement ngiree comme mooy soxna yonent bi léegi nee na dama ko respecté ba mënuma jàkkaarloog moom dafa ñëw ñëw ba jub ko wan ko gannaaw na ko Zay Zaynab bégal yàlla subhanahu wa taala may na la nga bokk ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñi ñooy sahabatul kiram nga xam ne seen xol la ca feesoon bëgg yàlla ak yonent yàlla gannaaw loolu leneen amu ci yàlla na yàlla def noonu suñuy xol mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما جزاكم الله خيرا kon suñu borom jalla wa ala mu ne ma kaana ala nabiyi min xaraj nekkul du nekk ci yonent bi benn xat-xat fii ma farada allahu lahu ca la nga xam ne yàlla faratal na ko ñeel ko ay jagleel na ko ñeel ko daganal ko ñeel ko sunnat allahi fi alladina xalaw min qablu lii day mooy aada yàlla ca ña nga xam ne wéyoon nañu ca la jiitu wa kaana amrullahi qadran maqdura nekk na la nga xam ne mbiri yàlla di dogal boo xam ne bu ñu dogal nattale ko allazina yuballighuuna risalatillah ña nga xam ne ñooy jottali la nga xam ne mooy yonenti yàlla ya li lettre yàlla yónnee ay jaamam wa yaxshawnahu wala yaxshawna ahadan illa allah ñuy ragal yàlla te duñu ragal kenn ku dul yàlla wa kafa billahi hasiba te doy na ci yàlla rek muy koo xam ne nii kuy régler ay jaamam la ma kaana muhammadun aba ahadi min rijalikum muhammad day nekkul baayu benn ci seeni góor ñi walakin rasul allah waaye mooy yonenti yàlla bi wa xaatama annabiyin moom mooy kay tëj la nga xam ne mooy ñañu solo woon def leen ay nabi anbiya wa kaana allahu bi kulli cheyin alima yàlla day bépp mbir mooy aji ki ka xam yaa ayuha allazina amanu zkuru llaha zikran kasira ay yéen julit ñi da leen tudd yàlla tudd gu yàlla gu bari waay wa sabbixuuhu bukratan wa asila dee leen ko sabbal ca suba ya ak ca ngoon ya huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu mooy kiy julli ci yéen moom ak ay malaakaam li yuxrijakum min azulumati ila nuur ngir mu génn leen ca lëndëm ya yóbbu leen ca leer ga wa kaana bil muminina rahima nekk na ci julit ñi koo xam ne ku leen yërëm la tahiyatuhum yawma yalqawnahu salaam seen nuyoo bis ba ñuy dajeeg moom mooy jàmm ak mucc wa aadda lahum ajran karima mi ngi leen di waajal pay yoo xam ne pay goo xam ne pay gu tedd la mi ngi noonu mbokk kon suñu boroom mi ngi wax ak ab yonentam ne ko li yàlla farataal ci yow daganal la ko bul am benn xarat ci jëfe ko ak ku mu neex ak ak ku mu naqari yépp te lii mooy sunna yàlla ca ñi jiitu woon te it mbokk xam leen ni ñi gën a tar ay nattu ci kaw suuf mooy yonent yi yonent bi alayhi salaam nee na ashaddu naasi balaan al anbiya ñoom la yàlla tegoon natt yi gën a tar ñu war ko dund ngir dañoo ñëw ngir changer système de vie loo xam ni nit ñi xamuñu ko woon tumuranke ne ñoom ñu war a ñëw nag pour ko war koo jàngale ca war caa joxe exemple bu bu gën a kawe borom bi subhanahu wa taala nee na yàlla lépp ay mbiram moo koy dogal nattale ko nam ko neexe ca ma sha allahu kaana wa ma lam yasha lam yakun li neex yàlla rek mooy am lu mu dogal kenn mënu ci dara mi ngi noonu jàll wa ala borom boobu nag muy tagg ñi nga xam ne dañuy jottali ay ndigalam ke salaatillah muy ndigali yàlla ak tere yàlla yim jëmale ci ay jaamam buñ koy jottali it yàlla rek lañ cay ragal duñ ca ragal ma samba duñ ca ragal ma demb amul lenn luñ ca laq-laqal lii la yàlla wax waaye it dañ ragal yàlla bu duñ ca xool seen intérêt bopp lii la yàlla wax lii la yàlla digle lii la yàlla tere amul kenn koo xam ne nii dana tax ñu soppi la nga xam ne mooy ndigali yàlla ya jalla wa ala borom bi nag ne yàlla day doy na ca ka nga xamee ne nii mooy réglé ca yonent yàlla bi borom bi nee na ko balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam tafal fa ma ballagta risalata e yow mi yàlla yónni jottali lépp li ma la yónni soo ko deful mel ne nga jottali woo misaal bi ñu la ciy jox rek su ma la joxoon cent mille ne la demal joxal ma ko Cheikh Ousmane nga dem ba ci yoon bi tiqi cinquante mille yi def sa poos luñ lay tuddee du truand nga ñoo ne sàcc nga waaw bu dee da ngaa jël cinq mille nag ba tey sàcc nga bu dee da nga caaru ci benn mille franc nag ba tey sàcc nga kañ ngay mat mooy da nga yóbbu cent mille yëpp kon it yonent yàlla bi yàlla ko jox ndigal jox koy tere na ko jottali lépp boo ci nëbbee benn rek xamal ne jottali woo dara mi ngi noonu loolu it mooy wareefu képp koo xam ne da ngay wax gannaawam liñ la sant ne lii la yàlla wax lii la yonent yàlla wax wàññiloo wuñu la yokkuloo wuñu la jeex na ñii la yàlla wax jeex na yàlla subhanahu wa taala fegal na la loolu topp leen bu leen sos bu leen def dara loolu muy kon mbir boo xam ne nii passé na borom bi di gën a feddali mu ne ay yéen nit ñi xam leen ne muhammad du bàyyi kenn ci yéen ci seeni góor mbokk rajul bu ko bu ko arab waxee mooy koo xam ne majeur na mi ngi jóge ci rijl ay tànk koo xam ne taxaw na bu dëgër ci ay tànkam amul du bàyyi kenn ci yéen lu tax yonent yàlla bi ñetti doom la ko yàlla wërsëgal yu góor ñoom ñëpp ki ci magoon mooy ibrahim un an et demi la la la la faatu ñi ci des yëpp ay un an la ñuy faatu sallallahu alayhi wa sallam kon amul doom bu majeur bàyyiwul doom ci kaw suuf waaw léegi nag ñun borom bi subhanahu wa taala teg ci nag ne ah bàyyiwul doom bu góor ci kaw suuf bàyyi na ay jigéen ma bàyyiwul doom bu góor ci kaw suuf jigéen ñi sax jiital na leen ba mu des Fatima ala kulli xaal kon mooy ka nga xam ne yonent yàlla la benn waaye borom bi waxul sax mooy xaatamal mursalin bu ne woon mooy mujj ci ña nga xam ne dañ leen a jox mission kon ñu ne yonent mën naa am waaye def ne rasul la ne xaatama nabiyin mooy yonent moo tëj yonent yépp te mbokk loolu la jullit war a gëm ñaan yàlla dajeeg mboromam ci loolu xam ne muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy xaatama nabiyin nee woon na nag balaa àdduna tukki dana am fanweeri nit ñu feeñ ñoom ñëpp woote woon ne yàlla moo leen yónni jàpp naa d'ici moom Sénégal lañ feeñ moom mi ngi noonu mi ngi noonu loolu moom am nañ ci sax ba am ci sax jigéen mi ngi noonu Sénégal lañ feeñ loolu kon keneen dootu nekk yonent mu am nag lu gën a garaaw tey jii mbokk su ma nee Cheikh Ousmane yonent la naam boole naa ko ci yonent yi loolu wax naa loo xam ne amut lu grave su ma nee nag Cheikh Ousmane mooy yonent yàlla Muhammad def naa ñaari déli ñaari déli jiñ naa ko yonent jiñ ko mooy mooy yonent yàlla muhammad loolee tax kee nga xam ne daa jël sàmba njaago wala sàmba ku mu mën a doon ne yonent yàlla la kookoo gën a woyof wax ki ñëw ne nag ne kii mooy yonent yàlla muhammad muy ñaari duural loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax malheureusement yàgg dégg ak yàgg a gis day dem ba banaliser lu mu mën a doon dañu naan aw fen fexeel bañ dégg ko mille fois rek buñ ko déggee mille fois jeex na génn na ci fen léegi ni ñu jàppale ñu normal na waaye mbokk la doon fen jamono yonent bi mooy fen ba ila yumi diin am déet na leen bu leen rajo ak télévision yi ndax mbooloo ma bëri na kër diine yi ñëw nañu ku ne ñu ne sa représentant ñu feeñal woo teb yonent yàlla wallahi lazi la ilaha illa hu waxuñu dëgg waxuñu dëgg muhammad mooy xaatama nabiyin muhammad ma nga faatu ñu suul ko ca bàmmeelam ba ca madinatul munawwara du fa génn lu dul yowma diin ñoom ñu ne ñetti fan la fa def wër ci kaw suuf loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala kon ni ay yéen julit ñi xam leen ne yàlla xam ne lépp yàlla dara réeru ko ñi ngi leen di déggal ngeen di tudd yàlla lu bëree bëree bëri waxoon nañ ko ca njëlbeen zikrullah azakirinullah kasiran wa zakirat borom bi mu ne yéen julit ñi day leen tudd yàlla lu bëree bëri tudd yàlla amul app benn waaye ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sharia bari na loo may sant mu ne ko fexeel ba sa lammiñ bu mu deñ mukk di tooy ci tudd tudd yàlla dee leen sabbal yàlla ci suba dee ko sabbalee la ca ngoon ca mooy daa iman rek matin et soir daa iman fu ngeen toll dee leen tudd yàlla di sabbal yàlla xam ne yàllaa ngi julli ci yéen ak i malaakaam julli ga yàlla julli ci ay jaamam mooy tagg leen ci kanamu ay malaakaam bokk na ci jataay bi yàlla nañ ko yàlla nangul yonent yàlla nee na ña ca toog yàlla da leen di tagg ci kanamu ay malaakaam amma malaaka yi ni ñu jullee ci jaam yi mooy di ñaan yàlla jéggal leen mi ngi noonu wa yastaghfiruuna liman fi l ard wa alladina yaxmiluuna al arsh man xawlaha mboolem malaaka yi dañuy jéggulul ña nga xam ne nii ñooy jurit ñu baax ñi borom bi it subhanahu wa taala ni moo leen di génne ci lëndëm yi yóbbu leen ceg leer fan la koy jaarale ci téeréem bu tedd bi li yuxrija annaasa min azulumaati ila nuur alquranul karim mooy génne nit ñi ci lëndëm jëme leen ci leer borom bi nag nee na dafa yërëm julit ñi wa kaana bil muminina rahima looloo tax lu bari ci mufassiruun yi dañ naan arrahmanu rahim arrahman mooy ki yërëm mboolem ay jaamam arrahim mooy jagleel yërmande julit ña ko gëm donte ne rahman tur la ci turu yàlla rahim jëf la ci jëfi yàlla jalla wa ala borom bi subhanahu wa taala nag ne julit ñooñu bis bu ñëwee aljanna yàlla dana fa dajeeg ñoom nuyu leen salaamun qawlan min rabbir rahim loole bokk na loo xam ne ci xéewal yi gën a màgg ci waa aljanna suñu borom yàlla nuyu leen ñépp di dégg baatam ba jël wa ala gannaaw ba mu seedal leen ni ah gërëm na leen seedal leen ni da ngeen fi sax ba faw loolee mbokk gannaaw ba it salaam boobu mooy feeñ ca malaaka ya mooy feeñ ci seen biir laa yasmauna fiha lagwan wala taasima illa qiilan salaaman salaama jàmm joo xam ne nii day sax ba dakk dakk dakk dakk borom bi mu ne maa ngi leen di waajal pay goo xam ne tey gu tedd la muy safaanoo ak àdduna àdduna li fi nekk dafay gën a ràpp allaaxiru lu fa nekk day gën a neex di gën a bees ba kañ abadan abadan faw yal na yàlla wërsëgal ñu àjjana di suñu wàccuwaay yal nañu yàlla wërsëgal ñu gëm lam bëgg ñu gëm ko te yàlla boole ñu ci ñëkk a jébbalul àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain